oto yi sonn nañ mun gis nga dem maa fekk may changé panneau nii mënuñoo am ay panneau yu baax ndax teggi bi fu ne nga jaar fa yaraax da ngay jógee presque midi géeg géeg waaye ay 3 heures xam nga loolu métti na. instant ñun ñun këwul karab bi ñu nga xam si ñun transport anniversaire ku ñu ci dimbali ñu ñu jël ñun wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg a dee ci ambiance bi gaañ wax dëgg yàlla ku ñu dimbali yaatal defal na ko deux ans yaat ñu jël ñu sant yàlla ñooy bëgg a dee ci embouteillage bi gaañ man sëwër car rapide la Mamadou Touré laa tudd mais embouteillage xaw nañoo sonnal bi bu ko defee camion dañuy teglantoo camion dem ba jaag paan kenn du xamati foo jëm ñii dañuy dem ba à la fin dañuy jël kilaay delloo leen sen paas ndax ñàkk pexe wàññeeku waat dellu suwaat yaraat mën a yabaat dem lii moom sonnal nañu métti na lool lool lool lool tali war nañ koo yaatal ah camion yi te bu ñu mënoon dimbali ñu jox ñu defal leen heure loolu dinañu arrangé ñun sëwaru transport yi xaw nañoo dee versement sax dañ ne balaa fee dañu sonn duñ ko am day dem ci expliqué borom patron sëwër yi borom oto yi sax dañu am compréhension ne waa joxe li ngeen yor rek garaaw xam nañ nu mu demee. comment se fait-il amagul benn état boo xam ni affronté na affaire bi ba jël par exemple euh, euh, euh, la route de Yaraax defar ko deux fois une voie wala deux fois deux voies. parce qu'en général, blocage de circulation Dakar, en général, blocage de circulation Dakar, c'est Yarach, avec Pékin, au rond-point Anbi. Bon, euh, euh, am aussi greffé wu ci le service des mines service des transports terrestres bu Colobane bi délocalisé pour délocaliser ko à Hann donc mu nekk nag euh, mu a indi embouteillage bu Mac, boo par exemple pour nga quitter le pont de Anne wala Castor pont de Anne pour rallier Capa mais c'est infernal. ginnaaw jafé jafé yu muy jur mu mën a ab perte ci walum kom kom ñi addu ñëpp di ñu xamal dara waralu ko luddul camion gros porteur yi service technique bi ak li di liggéeyu teewa antu ba pare di sàkku ab yaatal tali ci ñaari voies. ah embouteillage bi de kenn mënu la wax lan la parce que instant bi ni xool nga ko nii embouteillage bi yaa ngi koy gis nii fii la commencé ba espoir te doo gis auto bu paane lolay problème bi fii yara bu camion paane ci digg yone bi ken du jaal amul déviation doyna war dal daal. ak camion yi camion yi rek ñoo ñu bëgg a camion yi camion yi rek ñoo ñu bëgg a camion embouteillage dal xana camion yu bari ak tali bu baaxul rek moko ko waral mais du leneen. zéro en vie c'est bien pensé ni ko ni ko ni ñu ko xalaatee rafet na mais cest dire man mon problème c'est quoi échangeur en vie eh, eh, la route de Anne pour dem à Dakar par exemple war nga mën a échangeur bi watch à droite dem à Dakar yéeg échangeur bi watch à gauche pour dem à Pékin, Rufisque ainsi de suite ainsi de suite et on voit que ni benn voie rek le boo yéegee pont tu ne peux que tourner à gauche mais ni tu jëm Pikine Pékin, ba ci rond point bi ci kaw retourner et la route de Yarach est fréquentée par des les gros porteurs les camions qui sortent du port même moi, watch, wàccee damay presque 2 km pour pour mon là tu es obligé de sa et c'est pas prudent donc vraiment ça ça, n'arrange pas les populations de Arne. ça c'est bien que moi je sais que ni par exemple j'habite pas ici mais je sais que les populations de de souffrent énormément énormément énormément et que par exemple l'État devra devrait voir sa copie revoir sa copie vraiment pour euh, la situation parce que ça c'est une bombe à retardement